tey bokk na ci dat yi ñuy taxaw euh, fukki fan ak ñett ci weeru mars ci atum 624 bés boobu la woon xare Badar ba ay euh, jullit ci njiitalu Seydina Muhammad alayhi salaatu wa euh, jël ndam li ci kaw waa Xuraysh loolu la ñuy fàttaliku ak yeneen mbir yu xew at yu wuute 13 mars ñu dellu si. fukki fan ak ñett ci weeru mars atum 2018 ginnaaw ba ñu ko dàkkee ñaari yoon procès bi nga xam ne lu toll ci fanweeri nit fii ci réew mi dañu leen jiiñ di jëf wala di yëngu ci lu jëm ci terrorisme moom nag tàmbali waatoon na alxames ci fukki fan ak ñett ci weeru mars boobu ci tribunal bu ndakaaru imaam ndaw nag bokk na ci ñi ñu tegoon loxo ba jot na see def lu toll si ñaari atu kaso moom nag doomi Kaolack bi mësoon nañu ko woon condamné ci xutba yi mu daan faral di amal fukki fan ak ñett ci weeru mars atum 2018 ci la njiitu réew mi Macky Sall damoon Banjul ngir fekk ji session bu njëkk bu conseil présidentiel sénégalo-gambien ci teewaayu naataangoowam aadama Barrow kuréel boobu nag ñu ngi ko sosoon ci weeru avril atum 2017 ca génn bu njëkk bu aadama Barrow defoon ba ñu ko falee njiitu réew bu Gambie visite ba nag man ko amaloon fii ci Sénégal. fukki fan ak ñett ci weeru mars atum 2022 tombé ak benn opération militaire bi ñu tàmbali woon li ko taxoon a jug nag mooy mu doon liggéey maanaam mission boo xamante ni si dafay gën a yokku kaaraange loolu nag di ay kàddu yoo xam ne état major bi nekk fii ci ndakaaru moo ko yëkkati woon ndax nag nee na bët gànnaaru gox boobu nga xam ne moo nekk suñu diggante ak Gàmbi waa MFDC dañoo commencé woon di fa wane seen bopp fukki fan ak ñett ci weeru mars atum 2016 attentat ba amoon Grand Bassam ab fusillade la woon maanaam ay fetal yu tàkk ci benn gox boo xamante ni si dafa jege géej gi ak i touriste yi farataaloon nañu ko lool Grand Bassam boobu nag féete ca Côte d'Ivoire bokk na ci site yu ñu classé patrimoine mondial de l'UNESCO itamit ivoirien yi sax ba ci nasaraan si fonk nañu ko lool fukki fan ak ñett ci weeru mars atum 2017 falu pape François te turam dëgg di George Mario Bergoglio. ñu taxaw ci fukki fan ak ñett ci weeru mars 624 ndam lu jullit yi amoon ca xare badar ba ñu dellu si waat rek ci lan moo sababoon xare boobu ak ci yan anam la xewee ginnaaw bi junni ak juróom benni at jàllee. mbokk bu ñu bëggee ñëw ci histoire Badr lan moo ko sabab day delluwaat tuuti ñu dellu ci histoire. lan mooy dañuy dellu ci histoire mooy yéefari Màkka ak waa Quraysh dañu ne woon di dund ak ceddo di dund ñàkk dund seen lislaam ñàkk dund diine sax ndax boobu lislaam ñëwagul ci ñoom ku mën sa moroom duma ku ëpp sa moroom pexe teg ko ci kawam ñuy rey jigéen ñi di néewal góor ñi nga xamante ni bokkuñu ci askan wi ñuy tudd yonent bi aleyhi salaatu wa bi mu ñëwee dafa dindi loolu lépp ndax lislaam bi mu ñëwee moom dafa boole mais taqali bi loolu amee nag am na des pour et des contre ñi contrôle nag mooy ñi nga xam ne amoon nañu kàttan ñu mel ni ñoon abu jëlin ñoon abu lahabin ñoon shayba ñoon xotba ak seeni kim ñoom daal teg nañ fitna lool ñi nga xamante ni dañoo àndoon ak yeneen bi aleyhi salaatu wasalaam te di woon doole ñu mel ni ñoom Bilal gis ngeen histoire am ñoom Kabab gis ngeen am ñoom Ammar ibnu Yaasir ak yeneen i saxaaba Yaasir gis ngeen suma yëpp ñu njëkk rek fitna yooyu nag bi mu mettee ci gàttal si dañu jógee Makka dem Madina ginnaaw nag ci diggante bi dem nañ fi sax benn fu ñuy wax Xabasa muy Abyssinie mais bi ñu ñëwee muy Éthiopie dañu ñëwaat gis ne situation yi changé wu ñu dem Makka gàddaay gàddaay boobu ma ñu gàddaay yee dem bàyyi fa seen alal bàyyi fa seen i njaboot bàyyi fa seen i kër bàyyi fa seen lépp waa Quraysh confisqué ko kon dañu jël seen alal bi Yonent bi aleyhi salaatu wa salaam nekkee ba bis mu dégg ni Abu Sufyaan mu ngi jóge ci voyage ndax ñoom commerce lañ doon jógee lu doon doon dundee jóge Cham fas yéene delluwaat euh, Makka yóbbu leen seen marchandise bi mu ne saxaaba yi am ñu mu jël ni leen nañ dem dogaale ko nangu bagage yi ndax loolu lu légitime la suñu ñu la ñu jël ci ñoom Abu Sufyaan bi mu amee information yi ndax amoon na ay technique yu muy xamee ndax waa Madina jaar nañ fi war a jaar mu si temps bi du ko may si la contourné jaar beneen yoon ba mu jaaree beneen yoon teewul dafa yónnee ni waa Quraysh dem leen ngeen su ngeen gaawul Mouhamad dina jël suñu alal ji yëpp te boobaa ay xeer la ñuy dundee dinañ sonn ñoom seen ñu jógee bëgguñu seen alal rëcc leen ñëw bi ñu ñëw fekk na Abu Sufyaan teggi ba leen jaratu ko ndax teggi naan waaye nag bi ñu ñëwee Abu Jahl xam nga li naan rek ku repp ci xare moom mooy kenn mënu laa tee mucc kenn mënu laa tax a mucc faaw rek nga dem c'est la ne moom comme xës dañ ba génn faaw dañuy xeex histoire bi sax bari woon na ñii ne nañ ñibbi ñii ne nañu xeex mais abu suuf abu jëlin dafa dépassé ñenn ñi ci kàddu yi ay góor ñoo xam ne ne leen su ngeen demul looy war a ni yéen ngeen góor ay jigéen lañ leen jàppe man ngeen a musuur gi man ngeen a def leneen orgueil boobu jàpp leen looloo moo waral xeex bi ko yonent bi aleyhi salaatu wa salaam am na problème ndax bi muy jox xeex tax ko woon a jóg te amul nombre ndax trois cent et quelques personnes la trois cent treize yéefar yi mat nañ mille personnes nga bëgg a jàkkaarloo ñoom loolu c'est très sérieux waxtaan na ak saxaaba yi saxaaba yi ñu mel ne Abu Bakr ñoom Omar ñoom ñëpp d'accord nañ problème bi nag mooy waa Ansar ñi nga xam ne mooy waa Madina dalal ko mu indi leen guerre te xamuñu guerre est-ce que dinañ nangu na ibn Muaz moo jël kàddu gi keroog ni ko dafa mel ni ñu nga bëgg a xam suñu xalaat soo xuusee géej ñu xuus ànd ak yow loolu ñu sant ñu def ko ñun du la wax la waa banu Israël la waxoon Moussa ni ko demal xeex yàgg sa boroom ñu ñu ngi toog ñun ñuy ànd ak yow foo xuus ñu ànd ak yow xuus loolu mooy sababu guerre bi ñu xam ne rek les situations mënatu la jàkk faaw guerre bi am mu organiser wu avec ses compagnons tëral stratégie de guerre am ñu jàkkaarloo keroog ci rasotu Badri mu ngi tombé nag weer wii di weeru koor tombé ci ak di septième jour ci weeru koor muy guerre bu rëy boo xamante ni yàlla soutenir na jullit ba indi ci sax ay malaaka ñu xeex si xare bi jullit di am ci une victoire éclatante rey ci yéefar yi soixante dix jàpp ci ñoom soixante dix ña ñu reyoon soixante dix yooyu abu su abu euh, jëlin ci la bokk ña ñu jàppoon ci soixante dix ya abbas doonoon bàyyi ci yonente bi ndax mu papam ñoo bokk benn bàyyi si la bokk dama leen koo gàttale noonu lii lenn la ci histoire xare jërëjëf Serigne Abdoulaye Gaye euh, mm-hmm. di ko jaajëfal Mortala mm-hmm. comme yow tamit yaa ko fi teewal yow yaay tey suñu oustaz <laughs> ñuy fàttali ne xare badar bi mi ngi amoon ci jamonoy euh, koor euh, wax na li ko sabab itam mm-hmm. ci njiitalu Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam mais li ci gën a marqué mooy victoire bi ñu am malgré nombre bu réduit musulmans yi par rapport ak waa Quraysh ndax ñoom ñu ngi tolloon daanaka ci 900 et quelque ñoom moom nekkoon waa ahlu badr nekkoon 313 képp mais wax nga fi également bu Cheikh Ahmadou bind jëmale ko ci mm. euh, xasida benn euh, xasida boo xam ni Cheikh Amadou Bamba da ko bind jëmale ko ci bataayu Badr boobu mm. mais di wax rek ni Abdoulaye gay ak euh, dison di ko jaajëfal parce que mënoon na ni beneen kii la nekk bon duma ci fekk mais je pense esprit ramadan bi lii la en fait nga am benn xam-xam partagé ko mm-hmm. te moom également lii du mbetteel parce que papam mm-hmm. Khalifa Gaye ñëpp xamoon nañ ko ci kees mm, mu doon euh, chaque ramadan doon waare ci euh, juma ji nga xam ni mooy jumaa kër maam El Hadj doon fa daf di tafsir. Mhm. Euh, alxuraan moom muy raq ci. tafsir Abdourahmane mhm. Gaye ak Idrissa gay ak Moustapha gay bi gaañu également te nekkoon Maroc. waaw moom njabootam yépp ci loolu la leen tàggat di ko mhm. ñaan yàlla mu yërëm ko xare ko àjjana. mais mm, bataayu Badr bi comme nim ko waxee dafa titiyee titiyee lorga yu nit. nga léeg nga titiyee orgueil yu nit. Mhm. Euh, buy daf réaction. Mhm. réaction bi mën na jéggi dayoo. Mhm. je pense euh, jullit yi ba nu titiyee seen orgueil la nu fippu. parce que euh, Quraysh yi ki leen jiite woon dani yéen boo leen xeexul mel na ni sax ay jigéen ngeen bu leen yaboo sax ngeen sol yëre jigéen parce que jigéen lan leen jàppee. loolu nag metti waa ñi àndoon ak yonent bi ñu ni dañuy jàkkaarloog ñoom alayhi salaatu wasalaam parce que 300 lañu ñële di ay nombre de mille te c'était pas gagné d'avance moo tax bataille baadar bi c'est l'une des rares bataay yoo xam ni dañ ko tudd ci alxuraan décrite ko de manière parfaite ci sooratul Ali Imran boo fa demee dina nettali maanaam bataille bi ni mu demee woon ba li ci am am ci ba les anges am ay anges yoo xam ni dañu wàcc pour dimbali les trois cents am compagnons du profet nga xam ni euh, voilà xeex taxu leen a jóg dan doon topp benn caravane gars yi ni leen nag il faut ngeen xeex te boo leen xeexul doo leen jigéen. Mhm. loolu moo indi bataille bi. ba li ci xew xew ci mhm. ci jamono jooju sax la Zeynab. la fille du prophète nga xam ni ci moom la am ak Khadija ci la gaañu euh, période yooyu loolu daal la ñu mën a jàpp ci euh, mm. xare Badar bi Badar nag mm. c'est situé entre Médine ak mm-hmm. euh, la Mecque. Mm-hmm. merci beaucoup jërëjëf. jërëjëf Oustaz <laughs> Oustaz Mor Talla Gueye ah, moo tax 316 nekk chiffre bu symbolique ci julli bi merci ñu jàll ci xibaar yi tënk ko ak Cheikh Tidiane Diaw sëñ Cheikh xibaar yi ñu tàmbalee ko ak euh, coow lii ñu jàpp ni dafa am ci biir coalition benn Bokk Yaakaar ba tax seen candidat amadu Ba euh, dakkalagum campagne électorale am